asiru malabari nasiru wasanna الذي غالني لا كريم علي معلوم يزيد شكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نزولي وتأييدي ويسير الرداء من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيري ومكسي وسيرتي خديم الله وهو الخديم يمير أجاب قديما لخير الخلق وهو نسير يجيرني الكافي بي من أزل إذا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سوري وأيامي غدا لي سوائد بكوني عبد الله وهو الشهيد ستوري في الدارين مدهي محمدا بنزم ونزل وهو المهم الستور بشوري كتاب الله وسنة التي بها أهتمي عمانا وبزور قصور خلق والأهل عني تفرقا لمدي الذي عنه المدين خسير خرار ولا غر النسارى بكيدي وسنص سنانا وسنانا السلام عليكم يا الله xayra yéen ñëpp kenn ku nekk ñu ngi leen di nuyu sew tur ak saw sant di ñaan suñu kàddu yàlla na leen fekk ci jàmm di siyaare bu baax uh, Serigne Mountakha Cheikhul Khadim mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim ak Serigne Jili Mbacke mi nga xam ne mooy borom xayra ñu ngi koy nuyu bu baax ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi ci jataay bi ba yaa ngi dégg suñu kàddu ñu ngi leen nuyu bu baax. ah di santaat yàlla bu baax nag ci ndox mu manqué mii nga xam ne ñun moom la ñuy dund ci xaayra nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi fi borom kër mbaa yaa ngi jigéen ya eh, nekk nga jigéen yëg nga manqué tem ndox mi nekk xaayra ndax jigéen ñi yanu na noo yanoo yanu ba xamatuñ lu ñuy def góor ñi nit ñi mën a jënd jënd noo jënd jënd ba sonn léegi nag loolu bi ma ci waxtaaneek euh, bi ma ci waxtaaneek docteur Sylla waxtaan ci waxtaan ceeg baay docteur Sylla sax laa war a wax bi ma ci waxtaaneek moom mu ne ma loolu moom Modou fan yaakaar naa ne solution dana ci turéwu ci li ma ci man noonu nag bi bi mu demee noonu nga xam ne ci suba ba nëgë ni xëy na yónnee may oto oto ndox nga xam ne jigéen ñi fenn fu nekk la ñu jógee ñu ngi duy seeni i ak seeni paan di yanu ñu ngi sant bu baax di rafetlu it lii nga xam ne def na ko ndax nit lu la jaaxal nga dem ci koo xam ne man na la caa trouver solution mu trouver la ca solution li war rek ngi ñu koy jaajafal ñi ngi ñi ngi jaajëfal bu baax a baax a baax ñi ngi jaajëfal bu baax a baax docteur Sylla mi nga xam ne mi ngi maanaam euh, euh, Ablaye Sylla rek ci lan bëgg wax sax mais nag docteur Baye docteur ci la ko ci la ko yàlla jaarale ñi ngi koy jaajëfal bu baax di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defal li mu bëgg Baye docteur nag nit ñi ñi ngi jooytu ndax xayra it xam naa ne lii moom du luy dañ ndax nit nit juddoo na fi ba xëy say mustoo gis robinet buy xelli nit juddoo mbaa boog man sama kër nit juddoo na fa ba xëy say musta gis robinet buy xell te boobu ba nëgë ni ndox mu fi dugg dan koo yenu xam nga ne loolu metti na lu metti mënu ko paase wax dëgg yàlla rafetlu bu baax a baax a baax it taxawaayu Baye Saliou mi nga xam ne mooy rakki Ablaye Sylla ak Abdoulaat Diop yaatal Abdoulaat Diop wax dëgg yàlla lii lépp mooma ndax it ku mën a yaatal la yaat turam yi moom wuy na ko Abdoulaye Diop ku mën a yaatal la te mën a te mën a rafetal moom it lii lépp moom la ñu ngi ko ci sant bu baax di ci sant maam Thierno Diouf cameraman bi ngeen daan àndal te tey ñëw xam naa ne dafa am gàllankoor moom it ku mën a sonn ci yëf la te bëgg ak yaatal ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax maa ngi baal ñëpp ak di leen jaajëfalaat bu baax it ñu ngi leen di sant bu baax di leen di leen gërëm ci turu président Abdoulaye Sylla ñu ñëw fii nga xam ne nii mooy Touba Khayra fekk fi suñu représentant bi di sëñ moodu di sëñ moodu Ndiom di ku am taxawaay ci liggéey bi nga xam ne ni ñi ngi koy amal biir Touba di ku am influence aussi fii nga xam ne ci gox bi ñu la nekk ku nekk xam na waay juram ci gox bi muy nit ku am solo ku bëgg lu baax kuy nekk ci wàllum social lépp lu mu am rek koñ bi la ci la ciy jiital. wax dëgg yàlla ñu ñëw fii ci mission président Ablaye Sylla euh, comme ñu ko commencé déroulé ci kaw ci quartier yi ci nekk Touba yëpp ñu am jafe-jafe ndox tey nag euh, programme journée bi yëpp fii lañ ko amal muy Touba Xayra. ku nekk bi ñu fi ñëwee sax suñu yaram dafa daw parce que ni ñu population bi accueillir yàkkamti ñu ñëw ba pare ñoom ñëpp ñu génn seen i kër ku gis euh, ñii suñu ginnaaw xam ne lii jafe-jafe bi yàgg na fi sonn nañ lool lool lool lool. ba tax na nag président si la lii ay mesure provisoire la maanaam mesure la yu mu teg yoo xam ne nii mesure ndéggandiku la. waaye amaana am nañ benn am nañ ci projet yu am solo yoo xam ne nii fan yii di ñëw ak weer yii di ñëw dinañ ko mettre en œuvre incha allahu rabbi ànd ceeg yéen ànd ceeg population Touba bi yëpp Touba population Touba nañ xaar seen doom président Abdoulaye Sylla mi ngi ñëw. dina ñëw lépp lu leen am ci jafe-jafe rek bu soobee yàlla dana ko dana dana ci def kéemtalaay kàttanam incha allahu rabbi pour pour saafara ko ndaxte moom kat fii la am lépp lu am tamit fii la fii la koy indi te du yamut ci ay wax rek ci ay jëf la nekk. dëgg yàlla ku nekk gis naa taxawaayam ci ci ci ci Touba taxawaayam ci askan wi fépp foo dem rek balaa ngay daaneel say wax rek cant ga ak gërëm ga day jéggi dayoo daal ba tax na loolu rek succès la loolu rek ndam la wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax sëñ Modou di leen gën a tàllal suñuy loxo di leen gën a dénk suñu bopp bu yàlla ñu ànd ci liggéey bi mu liggéey boo xam ne nii wax dëgg yàlla yéene ji ak mbëbét bi yëpp mooy nu ñuy def ba ñoŋal suñu suñu askan nu ñuy def ba yoon wi nga xam ne nii moom lañ bokk mu yoon wu Serigne Touba ñu fexe ba nuñ ko gën a dëgëralee dëgëral yoon wi nag mooy dëgëral suñu gox wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax xam naa ñu wàcce foofu kàddu gi. tey ku ne xam na ni euh, xëy si nañ fii ci xayra fekk fi Serigne euh, Modou ñoom mu nekk responsable boo xamante ni day jàppale Abdoulaye Sylla euh, nekk ci ginnaaw Serigne si la ak sunu papa docteur Sylla ñu liggéey fi liggéey bu am solo. ndax yaakaar naa ne lii nii eh, askan wi soxla woon na ko nekk na loo xamante ni tamit bëgg-bëgg doomu aadama te xamuñu woon fenn fu ñu ko mën a amee siñ jàppandal nag Serigne si la tekk ci loxo Serigne mun ñoom ñu ñëw fi tey jii depuis ci suba balee ñu fi indi ay seetaan nañu pour servir population bi. léegi nag loolu liñ ci yitteew mooy nit ñi moom ku leen nekkal ñu nekkal la ab laay si Sylla na kenn ku ci ne gis naa ci social lii moo ci gën a tuuti waaye nag lii la gën a bëgg ndax ndox la. ndox dafa yaakaaru ndox dafa nekk loo xamante ne tamit eh, lu am solo la ci dund dunduk doomu aadama parce que jaamu yàlla moo ko mën a matale lépp loo xamante ne dafa ko pour set pour sell rek moom moo ko matal mu xam loolu nag yëkkati ay oto dugal ko biir Touba. ñu ñëw ñu jàppale waa Touba ci manquant ndox bi nga xamante ne xamuñu lu mu doon tey ñu doxantu fa xayra xayra nag am luñ ciy jaaxal parce que yaakaar naan xayra ay homme de politique ñu ngi fi yeewoo yu bëree bëri yoo xamante ne xamuñu seen njariñ yoo xamante ne population xayra xamuñu seen jariñ yoo xamante ne xamuñu lu ñuy jariñ askan te yaakaar na am na ci ñoo xamante ay au conseil lañ nekkoon am ñoo xamante tey jii honorable député moom la ñu moom la ñu diglu am ci ñoo xamante ne tamit am nañ milliards yoo xamante ne wax dëgg bu ñu ko defoon ci xayra yaakaar naa ne jafe-jafe xayra du demee nii waaw te jii nag ci loolu ki nga xamante ne Serigne Modou ñoom xamante ne tëkkul benn ndombal tànk ci njàppandal sëriñ Abdoulaye Sylla xam te Abdoulaye Sylla du état lépp lu mu def rek koo def ngir social ñoom ñoo doxantu tey ji jàppale ci population xayran li nag fas nañ li des ci suñu kanam lépp dootu le ama amati jafe-jafe ndox suñ ko mënut a saafara ci teewee itam danañ ko saafara dawal suñu seetana ñëw ba jege leen servi leen ndox ba ngeen doyal loolu nag ñun dañoo jaaxle li tax ñu jaaxle mooy ana ñi nga xamante ne tey jii ñoom la ñuy wax ay honorable ana ñi nga xamante ne tey jii ñoom ñooy suñuy député mais am nañ ana ñi nga xamante ne tey jii ñooy taxaw assemblée nationale di mbubboo nii di mbubboo nii ñun dañu ñoo fi nekk askan wi kon nekkaluñ fi dara Sénégal rawatina waa baa bu ñuy fal nañ fal kii yërëm jigéen ñi yërëm ndaw yi nañ fal ki nga xam ne tey jii bu dara du dara dana def social nañ fal ki nga xam ne taaliba Serigne Touba la waaye nañ fal ki nga xam ne Touba rek moo ko ñor waaye nañ fal ki nga xam ne tey jii bu yeewoo Touba la bu tëddee tamit Touba la muy Abdoulaye Sylla loolu na ci ñëpp bàyyi xel kon nag mbokki xayra yóbbal bi mi ngi noonu lii daal yaakaar naa ni eh, kenn du ko gis di ko di ko naatable ci ci leneen yaakaar naa ni moom roy du nuroog piir ku ne xam ne roy du nuroog piir ñi fi nekk nag wax rek lañ bari fan yii nag dégg nañ ay ndaw yoo xam te ay politiciens lañ ay politiciens yu mag nekk ci seen ginnaaw ah di leen ruuxale di leen jër di leen jar ci kaw ak kaw Ablaye Sylla ak C50 ñoom suñu xamul nañu noppi Ablaye Sylla tëluti wax fëyantuwul li ko ñor mooy liggéey liggéeyal senegal liggéey alalum ju lew di jàppale Sénégalais yi ubbi ay entreprise am jël ay ndaw jël ay jigéen jël ay góor ñu di fi liggéey kon ñooñu nga xamante ne tey jii yaakaar naa benn ministre ca Mbàkke wala keneen mooy jug li attaqué loo Ablaye Sylla nañ arrêté yooyu nañ xam ne Ablaye Sylla du seen morom du seen mbappandoo Ablaye Sylla taalibe Serigne Touba la te Ablaye Sylla muy liggéey ñun murid xam nañ fi mu koy def waaw xam nañ fa mu koy jële parce que day ñàq mais xam nañ tamit fi ko indi di ko di ko di ci dimbali njabootu Serigne Touba yi kon ñooñu xam te yëkk ne seen kàddu ñaaw nañ ko arrêté nañ xam ne nag buñ tiitee nag nañ xam ni nañ tiit parce que incha allah dañoo fa dañuy ñàkk nguur gi moom ndax Ablaye Sylla jug na te du leen may dara bu fekkee bundu xataa la ñuy def nañ arrêté yooyu yooyu ñun faale wu ñun ñu fi nekk Ablaye Sylla faale wuñ yooyu li ñu parce que que nag ñun ak ñoom la woon ci terrain bi dañ xam loolu bu baax a baax a liñ mën a ak seen point faible xam nañ ko yaakaar naa am na ci benn député boo xam ne ñoom ñëpp moom lañ gënoon a yaakaar ci laamañ fi mu toll arrêté nañ ay waxam dem na ca gayna yaa bukki yaa mbaam ya yaakaar naa ñoom ñëpp na foofu lañ mujj dem nañ xam loolu bu baax a baax ñun jug nañ di liggéey te li ñu liggéey tamit dañ ci servi askan wi te luñu yenn euh, tooñ yi te ñu nuyu leen nañ arrêté seen euh, kàddu yooyu ñuy yëkkat di ko jëmale ci président Abdoulaye Sylla wasa. lu ñuy woote te tudd ci sëñ Modou Bousso Dieng tudd ci doomam loola maa ngi ci biir ndax juróom-ñaari at la ma sëñ Fallou yar ba ma toll nii ma toll nekk Touba lu ci am ci kër yi rek am na lu ma ci xam am na lu ma ci mën a wax am lu ma ci mënta wax. Abdoulaye Sylla ñun moom dañ koy gërëm di ko sant ndax xaw ma ñaata at ngi nii amuñu ndox boo gisee suñ coono bii. fu ne rooti nan fa daaru mi nam ak fu ne dañu fay dem ñoo fexe ba am dara dara tey jii dañoo xalaatoon waxaale ab sareet mu rootal ñu ñu koy fóot ba ndox mi génnee may leen sëñ lu ñëw na sëñ Fallou ñëw na te yónniwul kël Ablaye Sylla wii nag leen koy ñaanal lépp lu mu yóotu yàlla na ci jot barke Serigne Fallou ak Cheikh Moutala mi nga xam ne mooy sama sëriñ di sama xarit ak Cheikh Bassirou mi ci koñ bi barke sëñ Fallou di sant sëñ Ablaye Sylla ndax li muy defal moom rafetlu na ko trop wax dëgg yàlla ndax xam nga ñun waa Xayra da atum yàllaa ngi amuñu ndox kon bu demee ba indi ba oto ndox ni ñi koy duy loolu sant yàlla la ñuy def ndox nag bu yàlla boole taalibu sëñ Touba te sëñ Ablaye moom gannaaw la ah, lu mu nekk daal ñoo nga ca ñoo ñun wa waa Xayra ñoo ngi toog di ko xaar te bis bu ko nekkee nag na jàppale suñu doom ji mudu ñoom mi ndax mudu nit ku baax la te lépp lu baax la mu am indi na ko Xayra ñooy sant baax di ko gërëm gis nga suñu doon mi nii amuñu ndox defuñu neen mu jàppale ñu yal na ko yàlla fay ak Serigne Touba ba li mu yóotu mu jot ko ak Serigne Touba. أو بؤدي للبر أنت النسير فسل خالقي تحجيلا أو بي بمنيتي فساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما ما لا ولساني نعم بدور ومن